alors benn nit tëleen fii nii. ok moom dem ci point de presse bi nee na dàqul ñëwaat Sénégal ah bu ko laajee aussi. loolu quelque part moom. <laughs> danañ ci mën a li mu def risque la ragal du ko def. oui il a dit ah. mandat d'arrêt international la requérir contre yow. nga ñëw ne ko maa ngi nii. au moment où je te am na ay sénégalais yoo xamante ne ñu ngi jël le chemin de l'exil. Mhm. am na ay sénégalais yoo xamante ne au vu de ce qui se passe ñemeetuñu wax. am na ñoo xamante ne bu coow nee kur dugg nañ seen i suufu rondal Juan est venu ci ki nga xamante ne moo ko lancé mandaa d'arrêt mu ñëw ba ci dëkkam ne ko ma ngi c'est pour te montrer que je n'ai pas donc euh, en tout cas euh, xaw ma naka ko nit mën a décrire. Hmm. mais jàpp naa ne Juan humilier na euh, lu bëri ci réew mi ça moom c'est clair c'est une humiliation un état benn nit. Mhm. duggu nu mu ko neexee. ñëw wax lu ko neex. système judiciaire bi tontuwul kenn. Mhm. génnaat laal pêcheur am ne fees ba mu génn territoire bi nga koy soo non mais. malgré tous ces moyens déployés andiwaat ko ba fii ñaari fan nga bàyyi mu. ok quand même est-ce que bi aussi war na gën a communiqué ñu xam parce que. defee tekki tekki bi dina xaw a lu ñuy wax lu ñuy wax. non euh, le ministre de la justice wax na. oui mais façon bu mu ko mais mais il ne peut pas dire ngay wax lan ngay wax nee naa la Rosso Mauritanie bi sax Rosso kese la wax. parce que voilà. mooy loolu mais état mythe la il faut garder les mythes ainsi de suite. Mhm. mais l'affaire Juan Branco aussi effectivement euh, am na jur na ay malaise yu bare bare bare bare. d'autant plus que maître Babacar Ndiaye bi ñu ci jàpp. Mm-hmm. avocat l'ordre des avocats yëngal. Mm-hmm. avocats yi ñëw taxaw. donc euh, c'était c'était prévisible maintenant est-ce que dinañ ko defaat duñ ko defaat. ok l'avenir est euh, si mois lu jëm ci wàllum diplomatie jàpp nga ne waroon na mën a am njeexital bu fekkoon téye nañ ko wala persiste. na ah oui oui c'est pourquoi je vous ai dit que ministère des affaires étrangères français. ils ont tiré les ficelles. Mm-hmm. parce que xam na euh, état du Sénégal xam na impact bu mën a am. Donc, finalement, Juan a, est, est, devenu une patate chaude. Il fallait le laisser impérativement. Okay. Sinon, bon, voter rek après, leneen yeneen ak yeneen lay créé. Mhm. te jet noir la leen observé jet noir. lekkul naanul dara. tontu leen parce que ne procédure bi baaxul euh, ak yooyu jot na ko jot na ko. ci biir benn moo daal la fa wax. oui ci procédure bi yëpp muy seul la lutte libère. ok loolu kese la wax. et la souveraineté dont on parle. que Sénégal dëkk bu souverain la dëkk la bu moom boppam bu indépendant <laughs> dans cette cas de figure. mais xam nga ñun euh, en face du monde. depuis depuis depuis euh, euh, un certain temps depuis des années euh, en compagnie de FRAPP dont je suis membre fondateur mais léegi bàyyi naa yooyu mais nitu dëgg chaque 4 avril dañuy taxaw ne indépendant amu fi. Mhm. c'est-à-dire la question de la souveraineté bii ngay wax ni le 2 août passé la jeunesse africaine s'est retrouvée autour d'une coalition. Mm -hmm. COSEPA de COPESA dañ ne coalition des peuples pour la souveraineté en Afrique c'est parce qu'on a un problème sérieux de souveraineté très sérieux de souveraineté parce que moment bi nga xamante ne euh, ñu ngi naan Paris ville des lumières lépp tàkk lépp leer soixante-quinze pour cent de son énergie fii lay jóge te courant yi di fi xuy kamaj le système judiciaire a été importé code pénal ak constitution lépp copie-collée mais dans ce cas-là comment on peut parler de souveraineté mhm. et peine à être euh, rigide. Mm -hmm. boobaa saa yi euh, une question de souveraineté d'accord on peut l'écrire la souveraineté appartient au peuple la constitution bi bind. ok qui l'exerce par la voix de ses représentants donc même si ce peuple la mënatul exercer. Mm -hmm. liberté d'association ça veut dire que il faut revoir les textes. ok ñu ñëw ci Ousmane Sonko ak euh, grève de la faim bi nga xam ne mu ngi koy amal. est ce que si ñu ay texte wala yu régir li nga xam ne moo di koo xam ne mu ngi ci dans les milieux de détention est ce que yoon may na ko mu amal grève de la faim d' bon euh, dara interdiru ko. ok et en droit surtout en droit pénal tout ce qui n' est pas interdit est permis lépp luñ dàqul rek loolu mën euh, nit mën na ko def man jàpp naa ni ils n'ont pas autre forme de résistance. Mm-hmm. moo tax ñuy def lu ni mel. mais jàpp naa aussi ne. non seulement euh, nit ku nekk am nga libre disposition de ton corps bu la neexee bañ lekk bu la neexee nangam mais nit ñi waruñ la cee seetaan sinon ce serait une euh, une question de non assistance à une personne en danger. kan moo la ci war a seetaan. Euh, garde yi wala askan bi administration pénitentiaire. parce que actuellement au moment ou je parle Hannibal Djim et dans une situation très inquiétante. mu ngi infirmière je pense. infirmerie boobu rek déjà mënul jël. Euh, en en charge son état de santé mais génn na infirmerie bi delluwaat cellule am refuse euh, de s'alimenter refus euh, de subir benn soin bu mu mënti doon mais kooku dañ ko war a évacuer foofu noonu et d'après mes informations euh, évacuation bi dañ koo bañ parce que dañ ne buñ ko defee euh, c'est cédé à une pression vous vous rendez compte te Hannibal la ko jiiñ expliqué na expliqué ti et il a posé une question pertinente euh, ci kii boobu doon mu ne kan la financé ci mbir ku def ñaawteef parce que yooyu lañ koy wax. Mhm. et bépp lu mu def ci euh, Kopar Express détaillé na ko mois j'en ai dinaa la ko jox nga xool ko détail par détail lépp loo xamante ne bépp euh, dossier bu mu activer woon Kopar Express détail par détail kaw Imam Ndaw man si sama jëm bopp man maa ko euh, yee vers deux heures du matin boobu mu ngi woon Canada pour mu def euh, cagnotte en faveur de Imam Ndaw mhm. ba mu koy defee noonu ba pare it woo na ma pour restitution bi ne ma na euh, nga ñëw seede ma ne ko du ma seede parce que xam naa la je sais que c'est mhm. quelqu'un boo xamante ne wàllum xaalis transparence claire léegi actuellement joxe na document wu lépp li nga xamante ne noonu la détaillé les collectes de fonds yi mu doon cagnotte yi mu doon def yëpp dinaa la ko jox dinaa ko distribuer à la presse détail par détail franc par franc actuellement okay. Mhm. là euh, en détention les présumés innocents mais euh, sa situation actuellement euh, ci biir cellule actuellement cellule yi nga xamante ne sànq ñu ngi may woo ci prison au Ziguinchor li mu war a jël passé na du simple au double voire au triple mhm. ak tàngaay bii nii mhm. et ñi nga xamante ne ñoom ñooy feesal prison la plupart ils sont détenus presque pour les mêmes causes. Okay. donc je pense que ni actuellement univers carcéral bi dañuy dund metti na surcharge bi paquetage bi metti na tàngaay bi metti na. ok et yoo xamante ne. Hmm. je pense que ni. Euh, bu ñu defee enquête bu profonde tuuti rek xam ne. ils sont mêlés pas dans ce qu'ils disent am na euh, Serigne Amdi Moustapha Mbacké hmm. yoonam newul ci ay politique politiqueul politigaanul duggul ci lenn jour bi nga xamante ne yeewi askan wi jël nañ décision ne dañuy dem kër euh, Keur Gorgui lever barricade moom ci la nekk ak ñoom sëñ euh, sëñ Cheikh Thioro buntu Sami waaye sori na kër Ousmane Sonko mm-hmm. taxaw fa di waxtaan ñooñu lañ leen jàppee ne leen ciix yóbbu leen prison ba nii may waxee koo xamante ne sax da leen doon dissuader bi ko gars yi naan kañ dem lever barricade da leen doon reetaan da leen doon dissuader pour dem ok mais finalement actuellement ñu mel noonu seen yoon new ci. Mhm. ñu ne ci prison ñoo xamante ne leur innocence est flagrante. ok nii actuellement di dund léegi nga ne ci kaso euh, amal grève de la faim est-ce que am na texte prévoir comme ci wàllum daan isolement et cetera loolu. benn texte prévoir que xam nga balaa ngaa daan ki kay. li nga wax. ok loo looy daanee koo xamante ne kenn interdirul li muy def. ce n'est pas interdit. Okay. mais par contre ce qui est interdit mooy nga passif ci nit ku nekk en danger. ok nga seetaan waaw. ci nit ku nekk en danger loolu c'est interdit par la loi non assistance à une personne en danger c'est une infraction et je pense que ni ñoom Hannibal Djim ñi nga xamante ne ak parce que il n'est pas le seul il y a mm-hmm. de gens yi nga xamante ne ñi dans les prisons il y a 300 je pense hein voilà ñooñu nag je pense que ni mm-hmm. man bu ma leen doon conseiller dañuy bàyyi loolu mm-hmm. muy Ousmane Sonko muy ñoom ñi koy def yëpp parce que jàpp naa ni euh, déjà prison rek metti na surpopulation carcérale bi metti na nga bëgg ci boole waale nag doo lekk doo naan doo faju est-ce que nekk une sorte de pression aussi. Euh, jëmale ci pourquoi c'est pourquoi je dis que euh, moyen de pression boobu noonu rek lañ am. moyen de résistance boobu rek lañ am ci détention boo xamante ne ñoom il le juge arbitraire. Mhm. mais man sa sa c'est sama sama c'est ma conviction personnelle pour man day gën accroître danger bi ñuy courir ñoom ñëpp. ok donc mais euh, comme Ousmane Sonko ñi ko yaakaar bëri euh, projet bi ñi ko gëm na yegg ci ci anam bi fii. waaye parce que euh, Ousmane nga war a laaj ndax war na yegg fii wala ñi ko teg situation bi waroon nañ yegg fii ci adversité politique. parce que ñu bëri dañuy wax ne Abdoulaye Wade dund keneen ak na ko finalement parce que ñu yegg ba fii. non mais doucement ñu Ousmane Sonko fi mu yegg ci résistance. parce que neenaa naa la fii mu toll amul beneen moyen bu dul bii. Mhm. donte man d'accorduma ci moyen bii nii. mais li nga war a laaj mooy ñii yegg ak Ousmane Sonko fii est-ce que waroon nañ yegg ak moom ba fii parce que saa yi defu fi lu fi kenn deful. Mhm. dans le cadre de l'adversité politique le président Wade gars yi teg nañ ay kàddu mu kaj ko dem. Mhm. le président Macky Sall euh, wax na euh, pour de raison x ou y nañu delloosi ci président Wade. dans le cadre euh, ci euh, adversité bi ko opposé ak président Wade le tweet et toujours la le président Macky ki qui dit que le combat contre ce régime se fera dans la rue ni ñu ngi woo armée bi ñu jël seen responsabilité ak côté du peuple déclaration yëpp amoon na fi déclaration am na fi ñu ne nañ jël bakkanu Ousmane Sonko. Mhm. déclaration am na fi ñu ne euh, bu waa ji nekkul candidat le pays sera en feu en sang. Mhm. ban déclaration moom moo fi amul. lan la fi Ousmane Sonko def lu fi kenn deful. au vu de ça ñoom nga war a laaj naka lañ def ba yegg ak Ousmane Sonko fii nii en un moment donné tu entends les gens parler ce n'est pas de l'adversité politique c'est de l'inimitié. Mm. inimitié dëgg parfois haine dëgg et pourtant ce que les gens ne dénoncent pas chaque jour ce que Ousmane Sonko subit les gens ne le dénoncent pas assez. ok alors que papaam xam ne yoonam neewul ci politique décédé na yàlla na ko yàlla yërëm xaare dañ koy attaqué yaayam lu ci yoonam ci politique mi ngi fële ca Ziguinchor yàlla ko yàlla may gudd fan ak wér dañ koy attaqué jabaram doomam toute sa vie Ousmane Sonko loolu la subir. ok Mais il faut mm. reconnaître à Ousmane Sonko qu'il sui aussi en ah. ok mais Ismaïla Madior Fall keroog dégg naa ko mu ne eh, ñi bekkoon bokkoon parti Pastef dañu war a encourager gën a dooleel Ousmane Sonko waaye du yoon ñu dem ci réseau sociaux naan mu ngi loof ak mu ngi sonn ak mu ngi feebar loolu aussi naka nga ko appréhender. mais na nangaay dégluwaat video boobu bu baax a baax a baax. professeur Ismaïla Madior